Ousmane sponsor bi lu ngeen wax. mais Père Mansour lii paa yi ko mën léegi bëri waay yow waay yow. gisuloo Père Birahim waaye xam naa ne am na. man Birahim Père Birahim Ndiaye. man Birahim mën na maa jur. wala loolu. Birahim mën na maa jur. ci seen gannaaw lañ topp. man 82 laa feeñ. 82 ak léegi ñaataat la. bariwul kii fu mu jógee. 82 man am naa 60 62 ans 59 laa juddu mais ay 200 kilos laa yoru nag boo xool loolu. maa leen di ñaan macha allah lii moom li ñu ci gën a kontaan mooy doomu banlieue moo ko def te gis ngeen salle ñu dem nañ fu ne entraîné waaye dëgg-dëgg bu ñu waxee dëgg rek salle bu mel ni moom gisuñu ko Sénégal te dem nañ fu ne entraîné waaye waa ji ba ma toogee moom Ousmane lu mu ma déggoo mu ne ma dama bëgg ni ñuy xoolee bët ku dëkk Almadies ni ñuy xoolee bët ku dëkk Ouest ak doom banlieue bi parce que doom banlieue dafa part une partie de rien pour arriver fi mu toll nii te gentleman mu ñëw tabax lii yëpp centre commercial bi yëpp moo ko tabax te am na yeneen investissement yoo xam ne ñu ngi koy def Pikine kon doomu Pikine la muy Ousmane ñu ngi koy remercier di ko gërëm bu baax a baax nee na saal salle bi waxuma la doomu Pikine mais képp kuy sportif soxla woo dem fen ñun bu ñu xam ne Europe bi sax foo matul lañ koy bàyyi fi mu toll nii non gis nga affaire bagage yëpp a ngi fi. ñu gis nga woote hmm. loolu dañ ci kontaan. xam nga dañu kontaan parce que benn bale neex na damm mais boo leen boolee du nax day naqaree damm te mbooloo mooy doore te mbëri comme li ma wax rek idée bi moo ne esprit ko war a bi dëgg la mais parfois bu ñu amee intérêt collectif nañ ko bokk liggéey ko moo tax ma jël sama téléphone su ma neexoon du ma ci woo kenn parce que samay adversaire lañ su ma neexoon dama naan du ma woo kenn parce que samay adversaire lañ mais ñoom ñëpp laa woo pour ma wax la dara man bal amul ku ma wóor ci mbëri boo lim du jeex ku ma ku nekk woo naa la ba ba sama adversaire woo naa ko. mais gis nañ fi Eumeu Sène gis ah, Mbër. Mhm. Mhm. mais parce que mbooloo mooy doole. ba pare dañuy gis Sénégal town bi fi mu toll nii dëkk bi bu ñu xoolee ku ñu laal sa mbir nga yëngu mbër rek ngay laal mbiram ñu ñëpp ñu noppi te suñu yëngu comme ni nga ko waxee xajul ci kenn. parce que waxuma la ñooñu ñoo ñëw ñu fa toole ku ci nekk milliers de personnes ñu sa ginnaaw mais ñun violent wuñu taaluñu ay pono defuñu leen dooy ànd yar ak teggin waa président ci yar ak teggin ne ko ñun kat say doom lañu te ba corona bi amee dagale nañ suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm ñëw yóbbu en tant waaye fi toll nii affaire yi doy sa doom yi ubbi leen alam ñu bëre ne leen respecté leen mesures barrières nga leen takk leen seen masque wala siège yi nii ngay toogee wala mur bu ne tant de personnes ngay dugal gars yi bëre gel antiseptique bi mu respecté distance yi gars yi bëre parce que fu mu toll nii de avant deuxième vague bi ku nekk ñam nga sama mbokk géwél yi ñam nañ musiciens yi ñam nañ ku ne ñam nga ñu ñoo ñamagul nañ ñu ibbil nag ñu bëre gisoo sama papa Mansour ko woo moom it mu ñëw déplacé wu Italie la jóge ñëw fan yi ma wax bi mu ne ma idée bu am sama papa yi Bourkhane mag sa mbargaan gis nga ñëpp waaw waaw waaw ñëw ñu moo tax man la mbëri benn affaire merul dafa nekk seen affaire te dañ ko war a xaw a xoolaat muy adversité bi dañ ko bëgg a dund fu ne te affaire bi du foofu mu yeggee foo xamante ni suñu intérêt collectif moo taaw adversité bi dañ ko teg fële ñu défendre suñu intérêt parce que ñoom mag ñi ñoom waruñu waruñoo ñu nangu pousse bi réer ci ñoom parce que ñoom ñooy suñu grand mais mat bu mu am man man du kenn ku la ci wax ne boo ñaa woowu ma kon moom sama devoir def naa ko li ki des rek ci ñoom la. waaye xam naa rek seen tànk moo diis comme ni may waxee rek noonu laa koy mën a waxee waaye daal lu ma bëgg mooy ñun mbëri fu ñu wootetee ñun ñëpp ku ci nekk jël adversité bi lem ko ba mu ron toog ci daal di ñëw teew ñu defaan sunu entene Papa Sow ak Siteu mooy lool seen bés bu jotee léegi day métti day saf-sap tafaatin woo naa ko bëri ne mais la waaxo bu ñu jeexee ñu continuer mais noonu la war a def loolu mooy yoon mais huis clos day métti mais lamb dafa caf ko caf ko bi du huis clos caf ko lamb du huis clos waaw xam nga taf nga làmb ji wii kuro parce que fi mu toll nii yow bëgg nga séance làmb mais am na koo xam ne baax ko bëgg fa yóbbu am na loo xam ne boo bàkkee ba daanee ni ñu yuux loolu ko fa yóbbu kenn ki nga toj ndaa moo ko fa yóbbu kenn ki nga takk jajji cent mètres moo kenn ki supporter yi nii nga gis benn booy bu col caaya ci kaw di ko toj yooyu yëpp moo la fa yóbbu mooy làmb ambiance culture la donc nag ñun duñu wax ni mënul nekk waaye bu ñu sañoon ñu defal ñu rek ñu respecté distance yi ci kaw ga bu ñu toogee ci benn 16 beneen bi ñu bàyyi ko wala ñaari ñu bàyyi ko toogaat beneen wala mbër bi kat la booñaa yow cent personnes ngay dugal maximum wala cinquante ñu def ko noonu organiser ko mais loolu pour mu am il faut état bi jàppale promoteur yi parce que promoteur bu ñu jëlee seen xaalis dugg yaakaar billet yi bu def ak yooyu nit ñi ñëw nga ne ko noonu loolu da nga koy wàññi waaye wutal loo ko jox tamit na ko yokkal waaw na ko yokkal na ko lii nag fay nga booñaa cent millions waaye am jox naa la nii benn cinquante gi nii yokkalal kii yokkalal kii ñeneen ñi jàpp seen mën a neex état daal foog mu jàppale laamu. ba pare considération bi ñu bëgg. il faut état def ko. waxuñu considéré wuñ parce que defal nañu arène nationale. mais plus de considération lañ bëgg. boo xoolee Covid 19 ba mu commencé président daa dem palais woo gaa yëpp ñu ñëw foofu. ñëpp ñëw nañ musiciens yi ñëw nañ rappeurs yi ñëw nañ sama mbokk géwél yi ñëw nañ ñëpp ñëw nañ ñu rafetlu ko nag waaye gisuñu fa mbër ñëw de wala nitu làmm waaw loolu nag du luy waaw loolu nag du luy neex say doomu réew mais nitu laam benn nitu laam même président CNG tax doy na benn nitu laam rek mu ñëw. loolu dafay rafet mais mais mais am na promoteur yoo xam ne ñamal ku foo Covid bi boo nee cent milliards. nee na làmb ñaata vingt sept millions. waaw mais tuuti de. waaw lu ñu kaas nag lu ñu wax kii ne de vingt quatre millions xaw ba pare ba pare nga jël ko. donc waaw bëgg ko seede de non promoteurs yi lañ ko jox mais promoteurs yi nga xam ne dañoo impacté woon ñoo xam ne tëgg nañ joxe avance te instant yi jotagun seen combat xamagun fu ñu jëm jox nga leen waaye nag bu ñu sañoon nag lamb lamb sax danañ xaar te ay borom jom lañu mais ñu gën leen considéré bu loolu amatee ñu wutal leen lu baax jox leen mbër yi tamit ñoom laajuñu dañoo am jom toog seen kër lu ñu mën a dundee lu mu metti ñu ngi toog seen kër waaye nag ñoo gën a impacté gars yi de parce que ngay jox bër benn avance kenn waaw artiste yi amul benn problème ñun mbëri moom mooy loolu xam nga amuñu benn problème ak kenn te loolu garaawul xam nga ñoom suñu xarit lañu ku nekk am nga ci xaritu artiste wala koo xam sa a wala waykat boo xam sa xarit la loolu amul benn problème mais daal li may wax mooy mbër yëpp ñu gën a engagé wu gën a jàpp xam ni lii xeexu ñëpp la lu xeexu booñaa booñaa rek amul combat su ma ne wax damay toog xaar comme gars yi rek dama xam ne ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay dañ ko war a affaire collectif ñu xeex fexe ñu ibbi làmb ji ñu bëre suñu rakk tamit espoir gars yi désespoir ñu amoon di dem ci ay gaal yooyu yëpp ñu bàyyi ko ñëw làmb ji neex ñu bëree di dund ambiance lépp neex incha allah loolu lañ ci bëgg. nga wax ci sa ne. waaw waaw ne ko nee fekk woo ko waaw da ngaa tardé nag bàyyi tardé waaw mais li ma wax leer na dama wax ni Eumeu seen suma frère la suma mag la ñuy xalaat am nañu xalaat man leen léegi sama diggante mu gën a neex parce que man doomu gor laa ba pare jantal laa ba pare ku xam sama niveau xam ne am na grand am du ci dugg tax noonu laa mel ko ëmb sama grand la dara mënu koo yàq ma wax ëmb tamit ne ko laa déggee suñu frère la. làmb moo tëree nii ma ne ko nag làmb ma ne ko am na droit wax la daa am droit wax ëmb seen lu ko neex loolu bu ci yenn gaan yóbbu dara du seetaan du dara mais daa war a wax da koo war wax. da koo war wax yow bëggoo kii bañ nga kii yooyu yëpp mooy yoon. li mu wax sax dafa mel ni dal na fi. Ah, waaw loolu mooy yoon. moo ëmb am coopération boobu xam ne làmb la nga teg ko ci làmb. ñun xam nañ la say frère la loolu yàqu suñu diggante yow dara teewul ci loolu nekk nañu si mais Lac ñu wandi ko ñoom ñëpp ay frère lañ nag ñoo bokk day bokk baay bu ñu jël affaire bi yóbbu ko au-dessus de làmb bu làmb jeexee jeex ñoo bokk xam dañoo war a waxante muy sab muy metti bu paree ñu joxante loxo mu jeex incha allah merci beaucoup jërëjëf